ses partisans ñu àndoon ak moom démb ne woon dañuy dekkal ngor tey jii Macky Sall war na ne rey na ngor ci ci ci république du Sénégal loolu nag maa ngi koy ñaawlu tey waa après nag ne leen bis ñoom ñooñu ñu des seen wàll ngi ñëw effectivement ñun ñun jot nañoo euh, guillotiner ba noppi sur le plan politique ci li mu bëgg def na ko ñeneen tey mais nag li ci métti mooy ku muy rendi day woo kenn ci waa APR ne ko ñëwal jàppale ma ren bu rendee ba mu ne kooku tëddal encore une fois tey moom baabaka c'est un c'est un jour sans un jour sombre doublement sombre d'abord, il y a la mort d'Ibadi qui m'a fait très très mal, qui m'a fait sourire. Mais aussi, ce, poignard-là que Macky a planté sur le dos du peuple sénégalais. Je crois que le Sénégal mérite mieux que ça. Mhm. Mais euh, Moustapha Diakhaté, on ne vous saisit pas forcément. Quand vous parlez d'assassinat, de poignard dans le dos des Sénégalais, il a la prérogative de former le gouvernement qu'il veut. Ah, bien sûr. Mhm. la, la constitution est claire, il Euh, ne moo mooy mooy mooy mooy fale ko waaye ba euh, euh, sëñ bi xam nga constitution moom yiw yiw nekku ci yiw la mm-hmm. notion de yiw mm-hmm. maanaam def lu rafet mm-hmm. ci constitution bi waaye lii mu def xam nga ne rafetul mooy looloo tax ma tudde ko poignardé sur le dos du peuple sénégalais maanaam bi ñu des mi ngi wax naan da daa ñëw pour liggéeyal gouvernement bi waaye léegi kon Ablaye Wade bi mu nekkee 1974 su ba 2000 nekk ci opposition bi kon da liggéeyal woon réew woon réew mi bi bi mu tàggoog Macky ak léegi kon liggéeyal wër réew mi Idrissa Seck na bàyyi caaxaan te wax lan la ko Macky Sall jox lu dul poste yooyu ba tax mu nangoo ànd ak moom na wax nit ñi lan la ko Macky Sall jox leneen wala lu mu ko dig ba tax mu ànd ak moom fii nag Sénégal la moom koo fi ëpp di bokk mënoo koo jëw na wax lan la fan la jaar ak Macky Sall ba tax mu nangoo dem la mu ne woon du wax ak moom dootul def ak moom ndax Macky Sall fonkul kàddoom léegi lan moo soppeekul lu ëpp lu ëpp ndomba tànk bii ba tax mu mu mu nangoo ànd ak moom parce que ndox ndomba tànk bi bu bëggoon loolu mu 2014 mënoon na ko am te xam na li may wax nag. Mhm. waaw bu bëggoon 2014 am ndomba tànk bii mënoon na ko am. kon nañu bàyyi caaxaan ni Sénégal yi ñuy poye. Mhm. mais c'est que moom Macky dañu poye Sénégalais yi. waa Macky Sall moom dafa poye waa Alliance pour la République mais nag gis nga li am solo gis nga man ñett yëpp rek laa jàngat gis nga sëñ bi gis nga kilifa. Mhm. su demee ba amatul baat kilifte kilifte Macky Sall amatul amul baat bi ci def maanaam loo wax mu teppiku loo wax mu teppiku boo xoolee gauche fekk droite nga jëm koo àndal man koo war te boo boo koy war da nga koy ree kooku loolu moo gën a bon ci kilif parce que aw askan bi bu ñu demee ba ki leen de maanaam ay waxam tegatuñ ko fenn rek wax ji jeex na maanaam réew moom mënatul avancé ci genn wet est-ce que war war gi war gi ngay wax ni Macky Sall war na ko APR mënees na koo tàmbalee ci yow jëm ci Alioune Badara Cissé ci Aminata Touré ci Amadou Ba ci Moustapha Cissé Lo euh, liste bi gudd na Omar Youm. gis nga war gis a xëy na gis gis nga ñi nga xam ne historiquement ñoo jëkk ànd ak moom. Macky Sall keroog bi muy bi muy démissionné ci PDS ci guddi ga ci këram ñi àndoon ak ñoom te boo leen boo leen tuddee seen tur ñu xam leen booleen leen seenee télé ñuy wax nga xam ne di wooy wax wala boo déggee kuy wax ci rajo nga xam ne yoo matuñu juróom ñooñu ñëpp kenn tekkitu ci dara ci nguuram gi parce que moom dafa jàpp ne yëf yi moo ko moom mais même boo xoolee campagne électorale deux mille deuxième mandat bi soo xoolee ni mu doon campagne rek ñu xamoon xamoon tuuti xamoon man de bi mu xooloo mu ne day dem Maroc pour former gouvernement ndax daa bañoon ñu daa bañoon kenn def ci mam pression ba mu toogee lépp ci ko mooy Mamou Salé ak ñoom ñu nekkoon ministre d'état mu leen conseil des ministres moom bu leen fa ñëwati gars yi di nëb nëb c'est que affaire moom maanaam man nga maa rey mën nga maa mën nga maa toroxal waaye bu ma rey hmm. ñoom loolu la ñu wax affaire devise boobu la ñu mooy rey ma maanaam toroxal ma waaye bu ma rey hmm, hmm. kenn ku ne maanaam jor ji koy bay du gëmal gën kenn ku ne xaar kañ lañ lañ nomé wala wala kañ ndax duñu la daane ndax waxoon na ko benn bés fële ca méridien mu ne képp koo xam ne d'accord ak man demal loolu moo tax gars yi kenn dootu noyyi kenn ku ne la nga yor da ngay fexe cok ko ñaa ngi xaar feeg 2023 2024 su la boobaa ñu door a xam ne ñu def encore une fois li nga xam ne moom lay def mooy fi réew mi toll fi Afrique toll fi jafe-jafe yi àdduna toll nit fal président la amul lenn lu muy yittewoo lu dul politique politicienne di ndaxante ka njuñ daaj la ma waxoon keroog ba muy lancé dialogue national naan bàyyi naa njuñ daaj waxul dëgg Macky Sall tey la gën a mën a njuñ daaj Euh, ba tey ci wàllu fekk gi ko Idrissa Seck fekki ba fi mu ne nii bokk nga ci ni nga waxee ñi nga xamante ne nii xamuñu lan la ko war a mën a dig ndax xel mën naa jàpp mu waajal ko pour buy dem wàcc ko fi. loolu moom gëwuma ko Macky Sall moom jàpp naa ne loolu gëndu ko sax moom. parce que Idrissa am na ay jafe-jafe àdduna Macky Sall am na fu mu ko ca féete ba xëy na moo indi lii loolu nag ci kanam lay gën dana dana gën a leer waaye du am lu mu koy dig évidemment c'est-à-dire am na loo xam ne daañu ko def mooy Macky Sall va mettre en place un dis euh, beneen dispositif politique boo xam ne day absorbé affaire ak yeneen ak xëy na peut réew mi pour beneen cadre politique boo xam ne xëy na dootu déggati ñu naan les compagnons historiques de Macky Sall parce que baat boobu moom bëggatu ko dégg c'est-à-dire loolu ma dana ko def parce que Benno Bokk Yaakaar ak affaire ak nii mu dobi noonu il faut il y a il dana am beneen dispositif teg boo xam ne xëy na ci biir waxtaan ba daañu seet naka la ñuy jàppalante pour man a conserver le pouvoir a ban forme lay doon nag xamaguma ko mais jàpp ma ne Macky moom yéene ko mu di ko remplacer ci ci biir réew mi parce que naa ne yéenewul waa APR moom kenn remplacer ko ci te nag defe naa ne euh, maanaam ku a da nga a yéer yéene doxana bi ci des na mooy Idrissa Seck waaye place bi dina ko joxe nekk ci des na mooy Idrissa Seck loolu parole n'est pas loolu moom Idrissa Seck gëm maanaam na fi ñu toll dañoo nekk ci léewtoo ak ndaxamte te loolu moo ci metti ay réew mi fu mu toll jafe-jafe yi askan wi toll au lieu que Macky Sall xelam nekk ci liggéey mu mobiliser wu mobiliser askan wi pour ñu xeex jafe-jafe yi muy def politique politicienne Idrissa Seck su baaxoon du tàggoo Abdoulaye Wade en 2004 kon moom du ko remplacer foofu Idrissa su baaxoon Sénégal yi fal ko président de la République Idrissa Seck su mënoon dara ba nga ni xam nañ ko kon encore une fois lii moom saaga na Sénégal saag na waa Alliance la République waa Benno Bokk Yaakaar waaye nag li may wax rek mbéjum kanam borom ko fay man a pour lool man ci lance un appel à tous les membres de l'APR des des des membres dignes de l'APR et de Benno Bokk Yaakaar et de de tous les Sénégalais ñu jóg du ay xeex du sànni xeex ci mbedd mi mën a di mars préparé wu organisé wu ba mën a tegal Sénégal lu gën nag. ñu ne ñu ne ñi mu ñi mu ñi mu génnee dàq leen. ku yëngu rek ñu ñu ñu yóbbu la kaso. Euh, génneel la dossier taqal la. ah ça moom bu ci kanam nga commencé dégg ñu jël journaliste journaux yi nga xam ne dañ leen a jënd wala journaliste yi ñu jënd ñu commencé génne ay secret ci nit ñi loolu moom bu ci kanam dañ ko gis. Mhm. c'est léegi ma ko baal ma euh, mais Moustapha Diakhaté ñii mu génnee ñii mu génnee ñëpp ñoom Amadou Ba woo Matar Cissé woo Mimi Touré. Mariam Aly Ngouille yow boo leen doon digal nu ñu war a def topp ci Macky rek kuul euh, wala déedéet xam nga sa dépend rek su fekkee yow ñoom politique dañ cee dugg ndax Sénégal moo moo leen ñor su boobaa jàpp naa ne ñu génne leen ci gouvernement bi du leen te wéyal seen action politique waaye nag su fekkee seen bopp leen ñor ak lu leen Macky mosal ak xëy na lu mu leen di dig ëllëg su boobaa mën nañoo waaw ànd ak moom léegi ñoom kenn ku ne yaay def choix rek li may wax toujours def li la war li nga jàpp ne yow moo la war parce que nag le devoir moom kenn ku ne yaay xool ñu da koy waaf wala nga assumer ko maintenant li ma jàpp nag mooy ci ci sénégalais yi nañu xam ne kii nga xam ne moom lañ jox réew mi di mu war fee nekk ba 2024 parce que man d'accord naa mu nekk si 2024 parce que bëgguma ñu jëlee ko parce que man bëgguma instabilité waaye war nañoo fexe ba bu ñu fi tege si nit ñu ñu gëstu jikkoom gëstu personnalité xool li mu li nga xam ne moom la dig réew mi ci lu leer nañ ba ba ba lu mel ni dund parce que nag quand même hmm. Macky bii fa Sénégal bii ñii fay nii moom bu ko Sénégal yi xam nga noonu 2024 bàyyi fi Ablaye. léegi euh, yitte réew mi mooy gone yi jël gaal gi ñu ngi jot léegi communiqué DIRPA di bànqaasu armée bi nga xam ni. oui ñu jënk ay xibaar ak jokkoo ñoom tey ci suba boori 8h30 ñu ne dañoo dab gaal benn euh, patrouilleur bu marine nationale patrouilleur bi ñu tuddee kii dugg. waaw dab benn gaal euh, boori 8h30 ci suba fi ñu ko fi ñu ko jàppee diggam ak Dakar toll na ci 65 kilomètres. oui 129. personne ci nekkoon téeméeri nit ak yaar fukk ak juróom-ñeent am na la koy doog a dégg sax am na ñetti jigéen ñu ci bokkoon ak ay gone. yu mhm. ba woon Sénégal bëgg a dem euh, Espagne. Mhm. waaye fexe nañ ba ba kar leen dëpp leen. ñu yegg si mhm. sànq boori 5 heures ci ngoon ci euh, base navale euh, bi nekk fii ci ndakaaru ñu naan ko amiral fay fay fay Gassama. léegi remaniement bi mi ngi ñuy fàttaloo sax tawatu askan week yitte yeneen yi nga xam ni. gouvernement bi indeegu ci tontu te est-ce que gouvernement bi ñu tàmp bee sax mën na ci dara. mais non gouvernement bi mënu ci dara parce que xam tuuti yi am lu mu jur gis nga xale yooyu ñooñu di dem pour man tudd du ma leen tuddee sax euh, ay dañoo bëgg a liggéey non ëpp na loolu xam nga lan lañ def seen yaakaar moo tas ci réew mi. c'est-à-dire jàpp nañu mënatuñoo tekki ci biir réew mi dem dañu gàddaay xam nga loolu yow yow kajoor kajoor ngeen yow yow yow sëñ sëñ bi xam ngeen réew mi yàgg ngeen a dégg ay nit yu gàddaay maanaam dama dem ba dëkk bi nga dëkk njaboot gi nga dëkk mu wër na ni fii mënut a sotti nga jël say bagage dem ba ajak jak dootoo gis say bopp gis nga ñii di dem bàmmeel bu sori moo leen gën a toog Sénégal loolu nag jàpp naa ne ku fi nekk naan ay du problème emploi yooyu problème mooy mooy échec bi mooy koo xam ne da woo nit ñi ci yoonu yokkute da ngaa woo nit ci émergence dama dem ba say say ndaw maanaam bàmmeel bu sori gënal leen toog Sénégal kon nga xam ne wax dëgg yàlla échec bi am na rawatina ci nag jamono jooju ñuy ñuy ñuy def ay remaniement bu taxawul et puis Babacar nag quand même Sénégal 700 kilomètres de côte moo fi nekk le côte marché Sénégal mënul dispositif bu ñu a surveiller les côtes ba kenn ba benn bateau du fi départ. il faut il faut il sérieux il faut que su fekkee ñun mënuñoo assurer la la frontière maritime de notre pays ba assurer ba ba bateau du fi départ c'est que nous sommes en insécurité. nous sommes en insécurité c'est-à-dire que l'armée c'est bien ce qu'ils ont fait dem jëli nañ leen ci biir géej gi gën a waaye dañ koy waroon départ. parce que li li leen firndeel kon ab bato mën na ay pirogue mën naa dugg ci réew mi du ma fi terroriste encore une fois qu'on arrête de faire du spectacle di wax loo xam ne wax ju caaxaan la c'est-à-dire kenn daa wër départ ci réew mi dem man loolu rek man la ma bañ parce que bakkar yi laay bañ ñu rot mooy ñi nga xam ne ñooy defar bato yi ñuy jënd bato yi ak ñiy wut client yi ak ñiy fayu ñooñu lañ war a seet teg leen daan yu metti ñi nga xam ne nag dañoo dem ba jàpp ne fii moom buñ toogee dañu torox ñu bëgg a génn réew mi ngir wuti bàmmeel bu sori bu fekkee mënuñoo tedd ñooñu moom jàpp naa li war def mooy dalal leen jàppale leen te alal ji nga xam ne union européenne da ko def ci réew mi ngir ñu xeex mbënd mi euh, mbëkk mi alal jooju nanu gouvernement bu Sénégal wax fu mu dugg parce que ay milliards yi ay centaine de milliards dugg na ci réew mi ci xeex boobu te gisaguñ benn xale boo xam ne euh, defaruma ci. Mhm. fekk nga sànq ñu wax euh, mbiri Touba ba noppi ñàkk kenn ku leen teewal ca conseil de ministres yi noo ko gisee. déedéet ba xam nga Touba dafa nekk dans un ensemble mooy d'abord la région de Diourbel pour la première fois dans l'histoire du Sénégal. région de Diourbel benn ministre la te am la amoon sax dañ ko dañ ko wàññi pour la première fois dans l'histoire du Sénégal moo tax toujours damay wax yooyu nekk di xas seeni responsable nañ leen bàyyi bu amee lu wax nañ ko wax Macky hmm. ma jàppit nag ña nga xam ne dañ faa nekk di kilifa di xëy na di di di ñuy sagoo Macky nañ xam ne Macky Sall parce que bu leen tegal fenn du doxaleen noonu damay wax toujours ne benn te centre te centre de vote Daaru Xuddoos rek bu ñu wootee uh, wat Fatick. Uh, Daaru Minam kay moo ëpp Fatick. Mm-hmm. Uh, Daaru Minam la quartier Daaru dañ mun taxa moo Fatick. non <laughs> <laughs> moom kay moom Fatick kay bu weesoo ministre yi directeur yi nag. waaw ah, ne su ko xayma moom laa la wax dama ne nomination Fatick yi. moo ëpp lim nommé toute la région de de de Diourbel. Fatick ngeen yëpp Fuuta nag loolu nag ñoom nañ ko non ñoom seen bopp ñoom ñoo war a jàngal seen bopp mooy lan gis nga ku kuy kuy dàq kéwél mu dem ci àll ba. da nga yéex a yàpp. Hmm. nañ xam ah, li ma leen wax mais ñoom kat wane nañ fu la nag ñoom itam saa yu ne acca ñu ne ko du fi. waaw loolu nag waaw ah, waa Touba la dëkk ba. waaw kilifa waa Touba ñu ni ñuy doxale waaw waaw moom am nañ seen pulay bopp. Oh, waaw kay kenn du leen yab moom ku leen ñoom marag mu lëndëm lañ ku leen hmm. dajut ñu daj seen bopp hmm. waaye nag kilifa yi moom ñu ñam ñabal waa naan waa ku baax la ku baaxut voilà li leen def <laughs> voilà li leen def pour la première fois dans l'histoire du Sénégal région de Diourbel xaaju ministre am léegi loolu nag jàpp naa ne ñoom ñoo war a seet euh, nan lañ ko war a tontu c'est pour dire que tegu leen mhm. mhm. léegi euh, Babacar mi ngi doon wax léegi ñi génn mais ñi génn bi ñu génnee wàcc nañ fa koo xamante ne nii yaakaar naa ni fi mu ne nii à part Omar Gueye menn moom rek moo fa des ci ku fekke woon premier conseil des ministres bu Macky Sall euh, jiite woon bi muy doog a falu muy ab Abdoulaye Daouda Diallo. xel yi dañuy dem ci moom. parce que moom moom itam bundu xataaloon na trop ñii nga xam ne ñoom ñoo génn. Euh, yaakaaroo ni moom itam fi mu ne nii xel yi war nañoo jëm ci moom. waaw xam nga Ablaye Ablaye moom d'ailleurs bon xam nga ci ñi ñuy tudd. ne euh, maanaam bëgg nañoo nekk président ci la bokk. Mhm. ña ñi ci des ñëpp moom dem nañ. Aliou Dembourou Sow nee na bu Macky paree jox Ablaye Daouda Diallo. yor nañoo jaasi te ñun dañoo tul. loolu la Aliou Dembourou Sow wax. non non ñoom ñëpp moom dàq nañ leen maanaam ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo bëgg a nekk président de la République Ablaye Daouda lañ ci bàyyi. Mhm. ah loolu nag xëy na Macky Sall moom moo xam tax xëy na xëy na li muy mbokkam di xarit sama tax ah, <laughs> waaye nag Ablaye moom jàpp naa ne moom Sénégal yi moom bu bu leen dara desi wuuloon Ablaye Daouda Diallo moom ñu wut un pays sans président de la République. <laughs> dëgg dëgg <laughs> Ablaye moom Ablaye moom jaar jaaram ministère de l' intérieur daal wan nañu ni moom wax dëgg yàlla nag. non mais non non il est incompétent. il faut qu'on soit sérieux tamit. non mais c'est que nag Macky Sall moo bëgg Macky moo bëgg genre nit yooyu ay des gens des courtisans yoo xam ne bu ne bu ne daal ñuul ñu ne ko ku bu ne daa weex ñu ne ko tàll yooyu yooyu la gëm quoi cest à moom bëggul collaborateur bu mën a liggéey il veut il veut des des des soumis des valets c'est comme ça quoi mooy genre yooyu nag Abdoulaye Daouda s'appelle l'affaire effectivement moom loo ko boo ko nee woon sa saaga sa sax mu saaga day bu ko mag Sall saaga woon sax mu ne ko dafa garaaw <laughs> <laughs> yéeme yéeme na yéeme na non non non yéeme na et puis dafa xam nga dafa metti man dama man yaakaar ji nga xam ne parce que xam nga Sénégal 1960 ba léegi Sénégal dañu am jafe-jafe Abdoulaye Wade nekk fi góorgóorlu waaye Sénégal yi dem ba xam ne góor gi fi mu jëm du kër ñu jëlee ko fi ci sonn ci trop jox Macky Sall réew mi. mais xam xam nga Moustapha Diakhaté looloo garaaw bu ñu demee tey ba Laye Wade ak li mu fi def yëpp ñu naan est-ce que tanewul kii fi toog loolu garaaw na ah. mais mais non Ablaye Wade bu amaatoon bu amoon cinquante ans wala cinquante six ans bu demee Macky Sall élection Macky Sall du dem deuxième tour ay itam. daal eh, deuxième deuxième tour parce que fondamentalement Abdoulaye Wade ce que lui reproche évidemment il a fait des actes de malgouvernance terribles mais fondamentalement ce que les gens lui reprochent c'est de vouloir nous imposer son fils mais Macky Sall li mu nu imposé doomu ko doomu Abdoulaye Wade gën loolu imaginez que Omar bi nga xam dugal na ko ci gouvernement bi il a été cité parmi les gens billahi mu bàyyi ko muy dugg ci gouvernement pendant ce temps Karim Wade doomu Abdoulaye Wade ñu tëj ko génne ko réew mi pendant ce temps Khalifa Sall maire de Dakar ñu ñu ñu tëj ko te xañ ko ay droits civiques am ñu jël Omar Sarr mi nga xam ne bokkoon na ci vingt cinq personnes yi Ah. pour ñu xanaa xanaa Macky daa am ñaan goo xam da ñaan ne lu ko neex def rek dara du ko ci fekk non mais li gën a grave ki hmm. nekkoon ki nekkoon CREI yi tey jii moom la def ministre de hmm, hmm. nga xam ne ci lañ tey woon ay da njong digganteem ak Omar mu def ministre de ministre ministre des mines c'est mooy les marchés fictifs keroog ba ma jëkkee ñëw assemblée nationale lañ ma wan marché yi ma xool ko marché yoo xam ne amul benn réalisation cinq milliards ñu jënd ci phytosanitaire mooy grésil ba ne ah xanaa kon day jaxaay tooy na xib <laughs> ñu ñu ne nañ def commission d' enquête ak suy bale ah, ak suy bale loolu kay Omar Sane moom takk ci ba takk ci RIP tey jii mu def ko ministre waroon ko yóbbu kër yi mu def ko ministre et eh, li gën a garaaw du loolu c' est Mimi Touré qui était président ministre de la justice à l' époque yilif la la CREI ñoom ñu war a ñu ne nañ maanaam nañ poursuivre Omar Sane kooku la ñu remplacer Idriss Seck Babacar lii kenn xamul lu mu hmm. doon. Sénégal ëpp na lii Babacar Sénégal ëpp na lii. mais foog itam bu sañee def lu ko neex itam euh, amul en face euh, opposition bu dëgër tas na ko nii ndax ku ku peek Idrissa Seck xëy na li ci des di nga ko mën a mën a gérer. toj réew mi wala wala taal wala. sotti ndox mais dañ ni euh, vraiment def politique opposition bu tax ñuy wax jàmmaarloo dëgg bu ko defee teg pression président la République ba du lu ko neex def. waaw xam nga Babacar Sénégal moom moo moo àgg foofu Sénégal damay wax toujours ne Cheikh Anta sax ma ko daan wax daf naa Sénégalais dañu leen a nax ba ku leen naxut dañuy yaakaar ne da leen di war c'est-à-dire que lu mel ni bu président bi bu ko ñemee c'est parce que en face non seulement y a pas d'opposition bu dëgër mais peuple bu exigeant sax moo fa nekkul parce que des citoyens conscients exigeants kenn ñemewu leen a def li Macky Sall def tey pendant cinq ñi di xaar ministre gouvernement nga indi lii nga ne boo xoolee remaniement bi yëpp leen rek ko tax dàq ñi bëgg ñi jàpp na daa bëgg a nekk ministre. Mhm, mhm. premier daan dañoo bëgg a nekk candidat. Mhm. ak wutal place Idriss Seck ak ñu bokk PDS. waaye sëñ bi yaa xayti mu laan lii jërul def rëba ñi ma jërul jërul nga nga téye nit ñi pendant cinq jours mobiliser journaliste yëpp man mi maa yéen a ngi may wax loo maa ngi consommé seen crédit yi ah yéen ñi yéen a toog na nga waroon a fekk seen soxna yi nopp di leen di leen defal ndax ndax bi kenn lañ nekk. walaay dibeer ji seen dimanche. ah mu mais quand même c'est-à-dire kii dafa. fàttali Amath Sarr boo fàttali ko bañ koy topp ci tribunal bu kenn génn réew mi nangu passeport am mu jël gaal. waaw jéggi dexu Sénégal gi dem Mauritanie jël avion yor euh, yor valise am romb gaañ aéroport. mais bien sûr. Ah. moom la def loolu Amath Sarr mi mu tey ji mu jël ko dugal ko ci c'est-à-dire quel est le message que Macky Sall bu envoyé aux Sénégalais. c'est-à-dire que mooy que en réalité man ay affaire u CREI ay bonne gouvernance gouvernance vertueuse bi suma problème man li ma intéressé maanaam li ma bëgg laay def parce que en réalité avant même Amath Sarr boo ko fi rappelé woo jëloon na fi benn Ousmane Ngom ànd ak moom dem Guinée. Mhm. te booba il était il était interdit de sortir du territoire par la par la justice sénégalaise. jamono yooyu de haut magistrat m'avait appelé pour me dire que le président est en train de e encore une fois vraiment je crois que luy jot jot na waaye li ma jàpp rek mooy Sénégal yi nañu préparé seen bopp ba xa ba ba nag 2024 moom ñu teg fi ku gën Macky ak lu gën lii bi Macky Sall parce que lii moom véritablement ñaaw na trop et j'en appelle ma au au au parti Alliance pour la République. ak au benn bokk yaakaar ak ñi nga xam ne ñoo àndoon moom ngir ngor ngir dekkal ngor bu ñu ko bàyyee dina leen rey non seulement dina rey ngor mais dina leen rey. <laughs> nañ ko mais yéen ñi nga xam ne ba mu ne ay yéen a njëkkoon a yow am na la jiitu woon sax ñooñee ku ci mel ni Alioune Badara Cissé ay Moustapha Cissé Lo yéen itam luy luy war a doon seen cër fi mu ne nii. xam man en réalité gis nga man kenn jëkku ma gis nga keroog. Ah, dekkal xaw ma sunu APR ñu ko tuddee sax. ànd ànd ànd non ba léegi léegi suqali Sénégal léegi xam nga ba bii. Uh, hmm. hmm. gis nga keroog bi bi may man Macky Sall kenn damaa jiitu woon ne bi amee ah, jafe-jafe damaa jekk déglu rajo seen rajo bii la. ma dégg ba Senghor yàq lu mel ne xamee Macky Sall ma woo Abou Abel Thiam ne ko dama xam lan moo xew. Abou Abel Thiam jox ma rendez fii ci direction de la force ma dem keroog laa mas a dem kër Macky Sall laa mas a gis jabaram ma toog ñu waxtaan ma ko lan moo xew mu wax ma ma sol sama daal diggante ma Abdoulaye Wade di ko jéem a defar kon man maanaam Macky Sall kenn jiituwuma ci bi mu commencé am jafe-jafe ak Abdoulaye Wade keroog ba muy ba yéen nangu assemblée nationale ci moom ci guddi ba muy démissionné booba ci këram la ma fekk te maa ngi nekk ci cabinet Abdoulaye Wade nekk inspecteur général du parti booba waxuñu ne damaa indiscipliné parce que man damaa jàpp ne dañ ko tooñ kon ñun ñooñu man li ma jàpp mooy la la taxoon ñu ànd ak moom Macky Sall parce que Sénégal moo taxoon sàmm ngor moo taxoon su fekkee dem na ba yàgg bëgg noo def nag ay aw di nu foye ñun ñoo war def nag yëfu magum lëndëm ku ko dajut mu daj boppam. yow ñii ñii mu génnee ñii kan nga ci gën a sentir koo war a mën a jëflanteel diggante Amadou Ba ak Mimi Touré ñoom so ñoom ñooñu. non non pour le moment man ak parce que dama jàpp ne il faut que ñun ñu changé démarche bi moo war a changé parce que man loolu fan yi ci kanam dinañ a changé parce que man dama bëgg rek parce jàpp naa li li ñu war a jëkk a def mooy génne ci xelum nit ñi ni nit mën naa régler problème Sénégal pour man je suis dans une ci perspective de démarche collective ñu seet naka lañ war a doxalee ba mën a te am waxtaane réew mi waxtaane jafe-jafe yi jafe-jafe bu ne ñu indil ko solution bu ñu paree ca loola nag ñu seet solution yooyu ñan ñoo ko war a porter mu tam loolu portage bi ñu ngi commencé ci les élections locales naka lañ ci war a demee les élections législatives naka lañ ci war a demee ak la présidentielle naka lañ ci war a demee mais man jàpp ma ne ay nit nit moo war a mën a régler problème Sénégal mhm. Euh, maanaam ay gor yu jaayante te Sénégal tax parce que gis nga euh, loolu exemple bi may joxe toujours dama toujours ne keroog bi Sëñ Tuubaa wootee ci Mbàkke Kajoor góor yàlla li mu hmm. yàlla yam jaayante loolu pas-pas ba mu ànd la moo tax mu génn ci c'est-à-dire ñun bu ñu bëggee defaraat réew mi il faut que ñu xool mag ñooñu ni ñu doxale woon ay nit ñu bokk pas-pas ànd pas-pas ba rek boole leen jàpp naa ne bés bu ko amee bu ñu ko teree ci kawam Sénégalais dañ ko gëm waaye nag politique wax dëgg yàlla 1960 ba léegi ci la ñu nekk jëmalewuñu kër yoon la woo xam ne buñ ci jaaree dañuy gën a sànku li war mooy ñu gis nga dama gis nga problème bi daggi car man garab gi du car yi lañu war a dagg garab gi ci moom lañu war a déqati jëmbat geneen garab gu bees bu ñu bëggee Sénégal bi. jërëjëf. Euh, euh, jërëjëf sëñ Ba. waaw da nga bëggoon am loo ci jonn rek laa bëggoon a laaj lu mu ci xalaat moom. oui oui jam jonn bon ça me fait mal parce que jonn moom c'est xam nga moom moo bañ ba tudd boppam mag euh, double bouton. c'est-à-dire c'est la loyauté euh, infinie. Mhm. yàgg de. infinie cest man Mouhamed dama ko dama ko dama expérimenté xam naa ne moom gëm na Macky Sall. Mhm. waaye nag le fait que ñu dàq moom bettu ma. Mhm. ak dàqam moom bettu ah, rek moom du assuré sax xëy na damaa bettul rek. ah moom bettu ma moom bettu ma moom dàq mais mais métti na ma. parce que nag Mouhamed moom moom itam ñu Euh, fësalut woon de mais nee nañ moom it bëggoon na. non bien sûr je sais ci ñi ci ñi. Ah. ku jege bëgg. ci la bokk ci ñu ci ñi ci ñi ne daa bëgg. daa bëgg ci la bokk xam nga li daanaka li nga wax mooy li waram nag naan ku bañ ku la donn sa ku te bañ ku la donn. sa deewin ñaaw sa deewin dara ku iñaane sa ndono. sa deewin ñaaw ma ngoog. jërëjëf Moustapha Diakhaté wala wala bi tekki ne ku ku bëgg gaaw a maanaam yàkkamtee taawlu ku mu nga xot sa biirub jabar. Hmm. da da da da nga am da nga am ndiw. jërëjëf kon Macky Sall na xam ne foog ñu remplace. jërëjëf Moustapha Diakhaté ci kanam tudd nañ jël waa parti socialiste waaye ñu.